te boo demee ci borom anos moo fay ngën gi sëñ Modou Kara foofu rek la nekk déggaat tam ci li mu wax ci doom ji maam Thierno magul ci njabootam waaye ni ngeen ko def muy seen général lu leen digal maa leen ko digal ndax ren rek def na bis bu mag ci New York Amérique man mii la tànnoon maa def conférence ba waaye li sëñ Modou Kara wax day gën naa dëggal sunu yaakaar ci moom ndax maam Thierno teggin yi ci moom yar bi ci moom bëgg lu baax gi ci moom déggal wee teel a jublu ci njub loolu war naa tax ku nekk jàppale maam Thierno kon tey ñu ngi am mbégte ci discours bi wax na ak jeunesse bépp delloo ñu ci bëgg sëñ Touba wax naa ak nguur gi delloo leen ci ñu jël model bi sëñ Touba indi pour man cee jëmale réew mi kanam kon yàlla na ko yàlla fay. mbégte la ñu am lool ci discours tay bi lépp fees na dell ak sëñ Touba mi ñu nawe waaye tamit wax na ci li nga xamante ni mooy jëm ci élection yi di jëm ak euh, réew mi léegi li ngeen ñi ñi ñi ñi war ñàkk warmaalee magu diine yi loolu ban jàngat nga ci def waaw loolu moom mooy li ñëpp di naqarlu rek mooy ñàkk a warmaal say valeur ñàkk a warmaal say kilifa te dem ci réewi jàmbur yi foo dem ñoom ñu fonk seeni kilifa te sëriñ Touba daa waxoon ni na ngeen yi ñett teel a nangoo liggéey ak fonk seeni kilifa nit bu fonkul ay kilifaam day naax saay parce que du am repère te ñun kilifa yi rek lañu am kon ñu ngi jëfaat beneen euh, appel di woo bépp ñu xam bu baax luy modèle ci ñoom ñu nekk ca modèle a ngi nii gis ngeen discours am bépp génnul bëgg sëñ Tuubaa kon nañu dellu ci sëriñ bi bala ñoo tardé Sénégal mënta dem ci kanam feek ñu ngi wutal sëriñ Tuubaa ay dendandoo ak di xeeb liggéeyam bi duñu am dara te dem nañ waxoon na fi moom sëñ Modou Kara ni bu ñu sàgganee chinois yi dinañ ñëw di ñu jàngal sëñ Touba te defe naa fi de jamono toll na ci ndax ñun ñi nga xam yàlla dogal na réew yëpp ci àdduna dañ fay dem pays bu ne dañ fay wàcc di fa def conférence gis nañ ni tey tubaab yi sax ñoo gën a riir wuti sëñ Touba kon nag ñun ñoo am lu kenn amul nañu jàpp sëñ Touba te xam ne suñu développement ci moom lay doxe ci njabootam lay doxe loolu la sëñ Modou Kara wanewaat yàlla na ko yàlla fayal kon daal ki jiite réew mi ka koy jiite ëllëg mu ngi ci loxol sunu borom waaye ku mu doon daal na wékku ci sëñ Touba rek su ko defee li muy doxal dina ko am. jërëjëf waaw bis boo xam ne ndaw ñi dañ daan dem feneen di waaw mooy li ma wax léegi dafay dimbali ndaw ñi rek. parce que ndaw ñi ku leen seetaan ñu dévier mm-hmm. te xam ngeen 31 dafa nekk jour boo xam ni ñaare ndaw ñi ñu ngi doon dem ci baal yeeg ci concert yeeg ci caaxaan yi moom mu fexe indi stratégie boo xam ni indi fu yaatu fu mel nii dajale fi ñëpp fexe ba discours bi jàll. mu delloo leen ci bëgg sëñ Touba. dana tax ndaw ñi gën a motivé wu xam ni yoonu saytaane amul solo yoonu njub rek am solo te moom sax parti de la vérité la woote. kon ci dëgg lay doxee génn yéen. defe naa ci biir waxam feeñ na dawlatul xaq nee na dawlatul xaq ila saa maanaam nguuru dëgg fële waaye dawlatul baatili nag saa nguuru caaxaan benn waxtu rek la. kon ndaw ñi nañu bàyyi loolu yëpp te xam ne fii mooy yoon wi ñu ànd ak moom ci parti de la vérité te dooleel liggéey bi te xam ne liggéey bi sëñ Touba rek ci leen jëme ndax moom li ko ñëpp nawee mooy bëggam sëñ Touba dafa mel ni boo xoolee ay veenam fii deretam di jaar lépp bëgg sëñ Touba ci nekk suy wax day feeñ ci discours am feeñ ci xadaram feeñ ci buy wax du bëgg sax dara lu yëngatu ngir ni muy teewloo ko tedd gi xasaa yi di sëñ Touba yi bëy di ni mu ko jekkoo loolu cofee la koy may nit kon dafa bëgg sëñ bi kon ku ko bëgg tamit juumoo da nga koo delloo njukka rek ci bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa macha Allah ñu ngi lay jaajëfal nga sa waajur euh, li nga ñu waxtaanee ak askan wi nga xamante ni teew nañ fi tey euh, bii c'est la première fois mu koy décentraliser di ko indi fii ci banlieue bi ci Thiaré Azir gis nga wax ji mu fi wax ak discours bi mu fi def euh, ban yëg-yëg nga ci am ak ban kàddu nga ciy sànni jërëjëf Sëriñ Tuubaa mën naa ne kàddu gi mënul bari ndax genn kàddu la te jóge na ci moom dugg na ci suñuy nopp lañ ca war a jëfee dañ koy dañ koy jëfee lañ ca war a bàyyi dañ koy bàyyi waaye ko xool aw doxinam xam ne senegal amuñu fayam rawatina ndaw ñi jamono ju nekk rek mi ngi fexe ñun nan la ñuy xeertal jëm ci ku tedd gi ak naka la ñuy sàmmee suñu taalibe ak naka la ñuy doonee ay dëgg-dëgg murit saadix ñu ko daan defee stade Maurice Ndiaye tey ñu ñëw fii ci Caaroy Azur ci maam Thierno sama rakk mu jiite liggéey bi yàlla yàlla dogal lañ ca bëggoon lépp ñu borom dogal ko ñuy sant waa Caaroy Azur yëpp ci seen taxawaay rawatina wa autorité yi. ak képp koo xam ne àndoon na nga ak moom bés bi ba bés bi réussir sant nañ ko gërëm nañ ko waaye gën nañoo takkaat suñuy laxasaay ñun ak taalibe yëpp dafa see jëfee ndigal bàyyi tere loolu mooy wax. waaye Mbacke tey bu ñu ñëwee fi nga xam ne mooy Thiaroye Azur ñu ñëw fekk si fi maam Thierno al imam ñëw Cheikh Ahmadou Kara Mbacké fekk si ko fi tey ñu toll ci jamonoy alxadimiya tey alxadimiya ndaw yi ñuy suivre bëgg nañ ci am ak leeral. xam nga Cheikh Ahmadou Kara dafa nekk ci tool bi. Mm. te jamono ju nekk mi ngi xool tool bi ban jumtukaay moo gën a efficace jamono ju nekk rek loolu nag moo dem ba indi ci jamonoy tey ñu indi alxadimiya moom nag na mu ko bëggee toujours moom moo koy wax. di dox jëm ca loola moo tax kenn du ci xaabaabal di ci wax xamul wala nga ci dugg ci xam ne dëgg bëgg méngoowut ak moom na mu bëgg loolu ñun daal ay outil yoo xam ne daa moo ñu fu ñu jëm ak fu ñu jëm fu ñu joxe daal foofu la fu ñu joxuñul du foofa waaw doon ay néew ci kanamam te fas yéenee nekk dëgg-dëgg soldat bu Serigne